ma voilà xam nga instant bi moom. Mhm. comme comme euh, ni nga ko ni nga ko waxee rek euh, moom Khady euh, bi nga xam ni dafa enceinte ba toll ci huit mois. man na ni instant bi pour le moment. tey bu ñu gisee ñu dañ ko condamné lu toll ci ñaari at loolu dafay. am lu mu nirool ci dossier boo xam ni dem nañu ba gis ni en tout cas la ñu ci doon wax wala lañ ci doon séntu ñun muy ndax viol am na wala amul mujjul am. Mhm. Ah, kon tey léegi nag appel bi dafa daf ko permettre rek ni maanaam instant bi nii. deux ans yi léegi maanaam dañ c'est c'est annulé quoi pour le moment mhm. provisoirement parce que appel bi loolu lay jariñ léegi nag ñu dem ndax ñu dem attiwaat ko ndax danañu ko tegaat daan yi ñu ko tegoon wala déet wala dañ ci am lu ñu ci yokk wala dañ koy soppar ni euh, loolu lees la di xaar ni nag ci li nga xam ne en tout cas moom moo ci moom moo ci am mais en mhm. tout cas avocat yi ni nga yi ni nga xam ni te loolu itam luñ doon xaarandi la que ni ñoom danañuy def defi ñu dem en tout cas. Euh, defi li nga xam ni effectivement moom mooy. Euh, appel euh, parce que du ñu bàyyi seen client bi nga xam ni moom mooy en tout cas Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. ak état bi mu toll quand même ñu koy bàyyi muy dugg ci ndungu sin ci anam googu noonu lekkoon kon appel bi daf koy permettre en tout cas mu daal di defaraat rek li nga xam ni moom mooy toogaayam moom Ndeye Khady Ndiaye pour que. ñu dem yóbbuwaat mbir mi ci yoon moo ko Adjira Bissar su ko defee nag yoon boobu noonu daal di daal di attoot et pour man c'est une c'est une très bonne chose euh, comme voilà loolu nga xam ne avocat mi def nañ ko en tout cas euh, ci yóbbuwaat mbir mi ci yoon ba sax euh, am na si ñu bëri jàpp nañ ne euh, bu Ndeye Khady Ndiaye duggalee appel Ousmane Sonko euh, def ci bokkaale mais man je crois que nii Ousmane Sonko bosam à part la parce que moom ñëwul ndax complicité de viole moom moo lié woon Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy Ndeye Khady Ndiaye comme que dàq nañ viole bi ak menace de mort bi complicité de viol bi tam ñu daal di koy dàq kon man je ne crois pas que ni am na benn liaison boo xam ne appel bi dina ko am. xam nga euh, cette fois ci di maanaam. Mm-hmm. appel bi euh, maam Ndeye Khary Ndiaye la concerné. voilà am na ñoo xam ne jàpp nañu ne Ousmane Sonko. daf ci dugg appel bi Ndeye Khady Ndiaye ci boppam la concerné moom la ay avocat am def li nga xam ni moom mooy appel. parce que moom ni ñu condamné Ousmane Sonko moom itam noonu lañ ko condamné. Euh, kon euh, appel bi concerné wul Sonko mais Ndeye Khady Ndiaye ci boppam la la concerné. Mhm. Euh, ci moment bi nga xamante ni si ni instant bi nii comme ni ñu ko waroon waxee rek tey ci suba Sénégal mi ngi ci. Euh, guddi yoo xamante ni si en tout cas euh, yu yu yu doy waar la ay rumeur xeete rumeur yi ne en tout cas yaa ngi koy dégg mais de toute façon il faut être prudent ci yenn euh, xibaar yi nga xam ni nit ñi dañu koy génne alors que du fekk du du du dëgg moo tax loolu il faut que yenn yi ñu def ci quand même très mais pour wax rek ci li nga xam ni moom mooy appel bi mooy que ni ki nga xam ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moom la ay avocat am def li nga xam ni moom mooy appel léegi nag danañ xam naka la wane di mujjee gën parce que boo defee appel mooy que ni atte bi ñu la atte d'accord ci da ngay dem voilà pour ñu ci yeneen yóbbu ko ci yeneen i juge pour que ñu atte loolu ñu attewaat loolu noonu di moins kon euh, loolu moom moo tax ñu naan appel te xëy na njortu nañu ni en tout cas yoon bi nga xam ni moom mooy yoon bi war bi jaar yoon dina ci def liggéeyam en tout cas ca na mu ware mhm. parce que dossier bi comme ni ñu ko gisee bi gisoon ko bokkee dañu ko ñu bari dañu gisoon ni dañ ko politiser wala dañu doon yàgg wax ni dañ ko politiser lu bare bare bari tey ji euh, Ndeye Khady Ndiaye nag tout cas bu demee mook ak Adji Raby bi nga xam ni euh, parce que mbir mi affaire privé la woon dans les normes xanaa ko moom euh, euh, affaire bi. moom ma mhm. xewee ca salon Sweet Beauté tey Ndeye Khady Ndiaye moom mi nga xam ne moom moom moom entreprise boobu noonu. Mhm. mbir mi waroon nañ ko mën a régler ci seen biir ñoom àllam yaa bu ñu demee nag boobu ko régler ci seen biir lay yoon war ci maanaam mais mbir bi mu nee xës ñu naan diw jël si ne diw jël diw si na diw. foofu la mhm. yëf yi commencé quand même euh, am yenn ampleur yi am ñoo xam ne dugal nañ ci seen loxo moo tax fi mu ne nii loolu kenn du ci mën a génnee maanaam que ni dañu politiser mbir moo tax c'est une très bonne nouvelle tey. Mhm. Euh, ñii di ay avocats am def euh, li nga xam ne mooy appel bi. effectivement euh, c'est une très bonne nouvelle avocat wu Ndeye Khady Ndiaye appel parce que jàpp na ne na nga xam ne noonu la lañ activé mbir mi li ñoom nanguwuñ kooku li ni mel waaye Ousmane Sonko pour sa part ne pa pas interjeter appel tant qu'il n'est pas arrêté par les forces de l'ordre ou qu'il ne se constitue pas prisonnier. Euh, loolu nag euh, lañ daal di xamle kebe di wax que ni euh, moom ki nga xam ne Ousmane Sonko mënul dugal appel tant force de l'ordre yi arrêté wuñ ko wala tant moom jàppi wuñ ko comme prisonnier du mën a dugal li nga xam ne moom mooy ci fàttali moom deux ans de prison ferme lañ ko daal di condamné jamono ji bien vrai que ne ma nga ci biir këram aussi. moom moom Ousmane Sonko effectivement te gis bi nii moom mhm. Ousmane Sonko boobu parce que. am na ay rumeur yuy wax di génn ka ni moom Ousmane Sonko xam nga gis nañu euh, kii di président Macky Sall dem wuy ji ki nga xam ni moom mooy euh, Serigne Mountakha Mbacké mais en tout cas ci ay sources yoo xam ni xam naa ni xaw nañu jege xalif bi trop trop ñoom nee nañu. Mhm. Euh, kii di président Macky Sall xalif bi recevoir ko de toute façon. Euh, ñun gisaguñu en tout cas benn photo bu récent boo xamante ni si nii ci boo xam ne ci guddi googale xew bu ñu photo kii di président Macky Sall ak Serigne Mountakha buy wane ni effectivement ñoom ñaar gisee nañu kon euh, instant bii nii moo tax ma ni xibaar boobu noonu parce que président Macky Sall effectivement dem na ba fa nga xam ni moom mooy Touba mais leneen li ci amaat mooy euh, am na ñoo xam ni ñi ngi wax ka ni. xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké recevoir ki nga xam ne moo di président Macky mais huis clos lañ ko defee nag aussi Kébé. peut-être euh, mu amul kenn koo xam ne dafay jël photo gi li mais mais xam nga même bu daan nekk huis clos genre yooyu noonu tey président Macky Sall déplacé wu na ba nit ñëpp xam ne déplacé wu na. loolu dans les normes waroon na mën a am. benn photo booy si la ñuy la ñuy waxtaanee ñoom mënuñu ko tàcc parce que du waxtaanu public mais daan na am ay photo ay firnde yoo xamante ni si maanaam firnde lay doon ñuy firndeel que ni effectivement ñoom ñaar ñi gise nañu mais nag la ñu waxtaanee ci ñoom ñaar la am ndaje yooyu moom ndaje yëpp maanaam en tout cas noonu la dafaan demee mais cette fois ci ba tey jii ñuy wax ak yéen gisaguma wala gisaguñu en tout cas man boog gisaguma benn foto boo xamante ni sii nii booy firndeel la que ni président Macky Sall la gisee na ak Serigne Mountakha bien vrai que dem na fa baax bon nag néew ma gisu ko néew ma gis na ko mais li nga xam ni mën nañ ko jàpp daal mooy que ni euh, am na des source très proches yoo xam ni ñu ngi weddi xibaar gi ni mel. léegi nag loolu moo tax mbir mu xaw lënt parce que ñun dañu jàpp ni un président de la République Macky Sall bu déplacé ba Touba. Euh, pour gis xalifa bi euh, dana ko war a mën a gis. te ci moment bi nga xam ni euh, moo tax euh, ma ni euh, de source très proche yoo xam ni ñoom ñu ngi weddi xibaar googu noonu moo tax affaire yi xaw a am na tuuti lënt lënt xaw a am tuuti nuancé te leen li ci des mooy comme li ma wax gisaguñu benn photo bu kon nag loolu taxaw tey da ciy def tuuti laata ñu dem gën a gëstu gën a am ci firnde yu leer te ni effectivement ñoom ñaar gisee nañu te yàpp naa ko ni ñoom ñaar bu ñu gisee itam te doon waxtaanee lu soxal réew mi lu mu yàgg-yàgg bu moytul dana ci am lenn loo xam ni dana ci tukkee jëm si li nga xam moom mooy moom mooy askanu Sénégal beneen bi ci des mooy euh, ay euh, yeneen yi te yi nga xam ñi ngi daw ñi ngi wax que ni xëy na moom Ousmane Sonko itam ci boobu la jamono xëy na Euh, Serigne Mountakha daf ko woolu mhm. mais dafa dafa daw ba tey euh, en tout cas. <coughs> force de l'ordre di. Euh, ci ay voilà ci ay rumeur yoo xam ne en tout cas ñu ngi daw. Mhm. di wane que ni Serigne Mountakha daf ko woolu mais dafa wuyajiwul parce que dafa bëgg a dem ak sa propre sécurité. voilà loolu itam ay xibaar la yoo xam ne en tout cas. mi ngi mi ngi mi ngi mu moom mooy dem. moo bëgg a demal boppam voilà may liberté woom. de toute façon comme ni ma ko waxee rek. Mhm. ça réseaux sociaux yi mais n'empêche nag dinañ ko gën a vérifier pour xool ba xam euh, est-ce que c'est vrai ou pas man da man damay gis sax des ay des personnes euh, yoo xam ni mën naa ce sont personne personnes yoo xam ne en tout cas ñu ngi koy partager mais ñoom itam dañu koy partager avec benn incertitude boo xam ne am na ci moo tax ay óore euh, li nga xam ni moom mooy xibaar boobu noonu la d'autant plus que jotaguñu Euh, kenn koo xam ni jege na sëriñ bi bu dëggal xibaar bu ni mel moo tax il faut que ñu ñu tey ci mais instant bi comme li mu wax mhm. jamono yi fi ñu fi ñu tollu nii nii euh, saa si tembe euh, ku ne xam na ni réew bi moom Sénégal soxla na ay euh, nit ay. Euh, mais man Kébé euh, li ma xaw a jaaxal ci benn côté mooy ci wuy ci président Macky Sall bi parce que ñi ngi wax que ne sëñ Mountakha moom moo ko woolu bu ko wooloo bu ñëwee man je crois que ne du ñàkk am na lenn bu gisee. nañoo fekk am na ñu ne sax sëñ bi wooloo ko. c'est ça qui pose problème ko woolu Serigne Mountakha ko. ay nit yu jege sëriñ bi nee nañu sëriñ bi euh, président Macky Sall gisul sëriñ bi ñun daal lenn loo xam ne en tout cas gis nañ ko ci ay vidéo te mu doon lu leer mooy que ni moom président Macky Sall dem na fa. te am na ñoo xam ni doon nañ ko yuuxoo. loolu euh, mbir la boo xam ne en tout cas lu voilà lu lu lu leer nañale leen li ci des nag mooy euh, parce que man dama jàpp nii sëriñ bi instant bii nii en tout cas communication war nañ ko mën a organiser ba li nga xam ni ñoom ñoo ci war a wax parce que journalistes yi itam dañuy soxla di taxaw ci fu leer nañ nañ mais tey bu fekkente ni kenn ku ne da ngay jaar fii di wax euh, say wax mais nag te mbir dafay am fenn foo xam ne aussi bu ñaari kilifa toogee di waxtaan ba pare Euh, nañ xamal nit ñi lan moo jukkee ci boobu la waxtaan. mais loolu loolu loolu noonu la fa daan demee. voilà voilà chaque fois bu ñu daan maanaam. waxtaan bu ñu mënta wax la fa xew lépp danañ wax ci yan poñ la ñuy waxtaanee. parce que man dama jàpp ni fi réew mi toll nii nii. merci beaucoup Sëñ gis ki nga xam ni moom mooy en tout cas kii di président Macky Sall c'est pour waxtaanee. lu jëm ci euh, jàmmi réew mi la. Mhm. lu jëm parce que tey Sëñ Mountakha quoi ak lu ñu mënti wax moom Sëñ Mountakha Mbacké tey mhm. euh, ku Sénégalais yi war a delloo njukkal la. effectivement Ndeye Amine Dicko la xam nga man Ndeya su ma dégloo vidéo boobu mu naan war na maa wax mais su ma suñoon su ma waxee mu am njariñ dëgg euh, te dafa am lu ma gàllankoor bu mun wax ma vidéo su ma koy déglu en fait sama sama yaram day daw parce que sentir que ni kii nii xëy na mi ngi ci réew boo xam ni li fi nekk di xew mësuñu ko xamee réewum Sénégal te ay magam jaar nañu fi ay ay baayam ay wajuram yu góor jaara fi toog ci xalif euh, xalif bi euh, lépp loo xam ne xëy na mës nañ ko yëkkati ñaan ko benn njiitu réew euh, mënees voilà mënees na ci am ni voilà dana am suite mais cette fois yi bu ñu demee ba moom sëñ Mountakha tey mu taxaw ci ci ci discours boobu mu def korité xam nga tey loolu noonu ci tolluwaayu réew mi moom mu taxaw wax carrément que ni yàlla xam na ni jàmmi réew mi lekk moom moo ko soxal te ku ne xam ne nii réew mi yàgg nañu wax que ni euh, fi mu tollu jamono ji nii en tout cas Euh, suñu mag yi li ñu fi jëmbat ak li ñu fi saxal amul lenn loo xam ni mën na dafa am loo xam ne dañu ko légee woon voilà tey tey mm. sëriñ Mountakha effectivement li mu wax mais kilifa gu toll ne sëriñ Mountakha tey mais su waxee li muy wax mu am njariñ su wax su sañoon itam bu waxee li mu wax nit ñi nit ñi nit ñi def xam nga tey président Macky Sall ñun boo xoolee eh, réewub Sénégal dama gis euh, l'activiste la Nathalie Yambou mu poids mu def poste bu bu bu bu xaw a xorom sax mu ni mm-hmm. le président Macky Sall le président sénégalais bi Macky Sall moom mm-hmm. nee na en tout cas maanaam moom moo taal Sénégal ba noppi. Mhm. nee na sa même président nee na président Macky moom la ñu gis mu demoon Ukraine entre Russie Ukraine pour pour def médiation pour pour jubóole leen alors que moom la muy dem di jubóole ji fële moom mi ngi xosi al dëkka moo tax euh, l'activiste nataliam boobu ñu gisee <laughs> ay reetaan daf ma xaw a jàpp effectivement man i tey pourtant président Macky Sall la ñun euh, fa mu dem mu am fitna ba muy dem di tooxi doxi tànki jàmm ba mm. fay doxaale ay soxlaam ay beleek ñoom seen mm. mais tey jii réew mi nga xam ne mi ngi tàkk nit ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ñi ñi ngi faatu yàllaaw mm-hmm. mais moom tey su ko neexoon tey tey tey lépp dàkk kon yaakaar naa que ni Euh, président de tous am na yoo xam ni quand même c'est paradoxal pour man euh, ci ci ci yenn ci yenn doxalin yi moo tax euh, bon Euh, en tout cas <laughs> moom Nathalie Yamb ma ngi koy ma ngi koy tëjee naan en tout cas l' a du a a de très bon <laughs> euh, a d' incroyable talent du moins yaakaar naa noonu la tëjee noonu la tëjee texte ba mm-hmm. euh, noonu la tëjee bataaxalo mu doon bataaxal boo xam ne en tout cas y a plein d' enseignement mais aussi xaw na retaan lu mais y a plein yoo xam ni tey am na ci tey président de la république man jàpp naa que ni mm-hmm. li nga xam ni moom moo nekk di xew Sénégal nii tey mm-hmm. moom mënul nekk boo xam ne dafay dem bàyyi euh, réewam te tey fii nga xam ni moom moo yore maanaam xam nga fee da ngay dem rek war a ñaan fii nag moom moo war a maye. kon jàpp mm. naa ka ni loolu euh, tey bu fekkente ni jàmm rek ak jàmm réew mi jàmm Sénégal jàmm Afrique jàmm mm-hmm. àdduna bi tey moom moo ko soxlaal moo ko soxlal président de la République Macky Sall tànk yi mu yëkkati woon ba dem euh, ca Ukraine fële ca Russie fële ca Poutine te na ko Poutine recevoir oon ñun ñu bari ñu rafetlu ko parce que gis nañu en tout cas moom Poutine Poutine du moins ba muy recevoir yenn président yu fare ki yenn réew tugal yi bëgguma turu kenn mm-hmm. gis nañu taabal yi nga xam ni moom la en tout cas ñi nga xam ni ay diplôme waa kii lañu <laughs> di di di ana def analyse ci yooyu noonu mhm. gis nga ñu taabal bi moom voilà la euh, utiliser euh, voilà euh, ak président Macky Sall dikkee mhm. ni mu tegee ni mu dende ak moom taabal moom la teg voilà loolu ci ñi nga xam ni en tout cas dañuy am na différence interprété ci wàllu boobu noonu mhm. def nañ ci interprète jàngat yu ama am solo loolu nekkoon ñun suñu fierté tey nag moom président de la république fële ñee ñoo soxloon tey jii ñun ñii ñoo soxla te li ñu soxla maanaam. te li soxla moom am na ko. voilà ñi koy ñaan xam la ñu koy ñaan te moom moo ko yore kon. nañ ko euh, voilà na na delloo si. na fexe na fexe moom moom président de la république président mm-hmm. Macky Sall na fexe ba li nga xamante ni si moom mooy jàmm mu dellusiwaat ci réewum Sénégal parce que xam nga lan mooy problème bi mooy. la mooy problème fépp Ousmane mm-hmm. ñi ngi kay. xañ mu bokk euh, élection ci présidentielle 2024 yi à saa su nekkee xelu nit ñi fitu nit ñi duñ toog parce que mhm. tey ku ne xam na ni buñ demee bu jub ay élection présidentielle euh, ay ay ay candidat jóg di campagne ñu ni Euh, leaderu Pastef bi bokku ci ay militant nga yooyu noonu dans ce moment euh, bu en tout cas du ma nettali géntu njàmbur mais xamuñu itam lan moom moo mën a mën a mën a xew foofu lan moom mën a am foofu moo tax ma ni tey euh, bien vrai que situation bi calme na mais lu ñu fexe ba mën a indi jàmm définitivement en tout cas moom moo gën que à chaque fois nit ñi di xalaat xëy na peut-être que fitna mën na jóg wala mën na mën na mën na yeewuwaat ci jamono googu noonu moo tax ma ni tey mm-hmm. moom président Macky Sall. en tout cas soxla nañu ko torop Euh, mhm. Afrique soxla na ko Sénégal soxla na ko jamono ji ni boo demee ba suñu voisins yi Gambien yi di bind bataaxal di ko ñaan sax à ce que mu dox moom président de la République Macky jàmm pour que jàmm a am euh, ci réew bi di Sénégal ça veut dire que kon euh, instant bi ñi nga xam ni ñoom ñooy préoccupé wu ci situation bi nekk Sénégal jamono ji dafa bari énormément que moom président de la République instant bi bu bu en tout cas ñaanaluñu ko nguuram muy mujjee foo xamante ni si nii du du du du du gënaluñ ñu gënalu ko moom itam euh, mm-hmm. loolu c'est extrêmement important parce que boo xoolee instant bi lu toll ci dix organisations de protection des droits de l'homme euh, mën nañ ci lim ONU UNICEF euh, plan international ak Save Children mm-hmm. yoo xam ne ñu ngi dénoncer actuellement l'utilisation des enfants comme bouclier xam ne après danañ ci ñëw après danañ ci ñëw effectivement ñu ngi ñaawlu en tout cas doxalin yi nga xamante ni si nii en tout cas mi ngi am euh, ci voilà ci fi nga xam ni moom mooy moom mooy moom réew réewub réewub Sénégal kon mhm. jàpp naa que ni effectivement euh, dafa euh, war a dox teg ay tànk ay jéego yu ama am solo moom président de la République ci li nga xam ni actuellement réew bii di Sénégal mi ngi ko nekk di dund te fi mu ne nii comme ni ma ko waxee rek. Mhm. comme rumeur yi nga xam ne mi ngi génn. Ah, saa su bëti xonkee ñu baree bari dem euh, ci seen xel dem ci ki nga xam ne mooy Serigne gis nga Sénégal. fi mu ne nii même même fédération sénégalaise de foot sax. ajadi na li nga xam ni moom mooy match yi en attendant parce que euh, ñoom contexte yi nii euh, instant bi kenn mënu ci def. dara dara a euh, mm-hmm. ñaan nañ yàlla mu génn ci. effectivement ñaan nañ yàlla Sénégal daal di génn fa nga xam ni jamono ji fa nekk comme niñ koy waxee à chaque rek président Macky moom moo mën a. indiwaat jàmm ci réew mi gannaaw suñu borom moom moo war a indiwaat jàmm euh, ci réew mi te xam na itamit nan la koy indiwee ak xam na itamit fan lay jaar euh, sénégalais yi ba jàmm euh, mën na ñëwaat ci réew mi te loolu rek lañ koy ñaan te comme ni mu koy waxee chaque fois loolu bëgg da ngeen ma koy ñaan ci njëkk ak teraanga ñun itamit dañ ko koy ñaan ci njëkk ngir jàmm mën a dellusiwaat fii suñu réew Sénégal gis nag. sëñ Mountakha ou pas l'essentiel mooy que euh, moom euh, président Macky Sall euh, demoon na foofu noonu ca Touba te xam naa ne dinañ ci am lu ñu leer ci fan yi nga xam ne ca la ñu jëm ba xam lan moo jukkee ca boobule waxtaan mais ku ne xam ne ne moom président Macky Sall ba demee Touba ca jàmmi Sénégal waaye itam crise bi nga xam ne Sénégal dugg na ci pour mu génnaat te ko ne xam ne ne sëñ Mountakha Mbacké mars 2021 am na lu am solo loo xam ne defoon na ko fi ba jàmm mën a ñëw. ci réew mu waxtaan ak ndaw ñi waaye tamit waxtaan ak président Macky Sall ba génn àddu ci mbir mi le alors que jusqu'à présent eh, gisaguñu mu àddu wala gisaguñ mu def benn tweet jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ci eh, ñàkk seen bakkan alors que eh, nit sax ñu ngi génnee tweet yi nga xam ne defoon na ko ña nga xam ne ñàkkoon seen bakkan ci réew tugal yi alors que fii Sénégal bëri na ci ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi alors que li ñu mel gisuñu ko loolu tamit nit ñi tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ca boobilee wàll mais nag Sénégal jàmm moo fi xaj na boo xoolee euh, crise bi maanaam boo xoolee manifestation li nga xam ne jural nañu ko euh, bari na lool perte yi nga xam ne am nañ ko xoola ci terre bi euh, durant première maanaam cinq jours rek ñàkk na li nga xam ne mooy deux cent quarante millions ñëwaat itamit ci wàllum maanaam internet bi nga xam ne dañ ko coupé ci ay coppa ci yi nga xam ne ñàkk nañ ko ci waaye tamit ca dégâts matériel ci moor yi nga xam ne am nañ ko boo xoolee mbir mi mën naa ne ci ñun lay gën a merte berte bi nga xam ne mu euh, ngi doon ko defar euh, mun naa ne presque léegi woon mu pare mais nag malheureusement gis nañ na nga xam ne doon lañ ko def kon moo lay wan ne mbir bu xewee ka taxaw daan sama yoon nekku ci boo jàppul ne boo sàgganu tuuti yow lay laal kon dëkk jàmm moo ci baax te bala nga xam ne jàmm moo neex nga daal di koy ñàkk mais réew ya nga xam ne ñoom ñoo ñàkkoon jàmm bu ñu gisoon Sénégal dañuy am fierté ci ñun parce que dañ naan ñii dañ na ci jàmm ak salaam mais kenn amatul fitu euh, ñëw Sénégal kenn amatul fit vacance jot nga ne xaar ma dem Sénégal xool tuuti parce que yaa ngi naan réew moomul à chaque fois rek euh, manifestation mën na am à chaque fois euh, dara mën naa juddu kon mu nekk mbir moo xam nañ koy waxtaanee bu baax a baax parce que réewum Sénégal jàmm la xam te guute gi nga xam ne moom moo ci dugg di ñaan suñu borom rek ñu daal ci génn bu baax a baax a baax comme ni ko Kébé waxee rumeur yi moom mi ngi bëri un peu yaa ngi koy dégg mais n'empêche ñun dinañ daal di xool information yi nga xam ne am nañ ko suñu daal di koy indi partager ko ak suñu mbokk internet ba léegi euh, Kébé. man euh, euh, nii nii uh-huh. sax jot naa benn lien. voilà. boo xam ni sëriñ bi ak Macky Sall ñoom ñoo toog. Uh-huh. ba pare ñu wax ma que ni voilà le xalif la bien reçu maanaam. Uh-huh. en tout cas li envoyé na ma benn envoyé nañ ma benn lien boo xam ni. Serigne Mountakha ak Macky président Macky Sall ñi ngi toog. Mhm. nee nañu ma euh, Serigne Mountakha recevoir na bu baax a baax ki nga xam ne moo di président Macky Sall. bon en tout cas euh, mbir yi mbir yi mbir mi ngi noonu mais de toute façon xam naa ni euh, lu ci manti am moom. Mhm. ci kàttun yàlla ci kanam tuuti dina mën na mën na mën na gën a leer. surtout la nga xam ne moom moo fa jukkee parce que loolu soxla